jigéen ñaay nga jëm arène nationale dimanche novembre Eumeu Sène Tapha Tine lamba sajetina laay lay la laa ko tëgg loolu ñu ne Albourakh le choc extraordinaire le choc des titans le choc des champions le rendez-vous de classe mondiale kookan la ñu ne dimanche takkusaan bu toj na ko kookan la ñu ne le grand champion Tapha Tine borom takk ci rip ah mbokk yi drapeau Albourakh Events ne monsieur Abdoulaye Diop ministre des sports la ñu tuddee lamb ji la première grande sortie du ministre des sports ma nga jëm arène nationale ñëw seetaan si Tapha ak Eumeu Sène l'homme de Guédiawaye la Diop di ànd ak Ndiaye noonu ndeysaan ci Tapha xale Bawol baa ngi noonu noonu ndeysaan góor si nga joon na ngi noonu oh ndeysaan ndeysaan alliance ndeysaan Tapha Tine a ngi noonu l'enfant chéri de Réfane borom takk sirip wala jàmmaarloo ak ama seen mbokk yi ndeysaan loolu la 12 mu nekk journée alburax mu nekk combat boo xamante ni ñu ngi ciy xaar Tapha Tine mbokk yi mi ngi Tafa mi ngi ree rek. ndeysaan. Tafa ngi ree rek. góoru si gaa ngi ree rek ndeysaan. oh chéri madame noonu. ndeysaan mi ngi ànd ak ñoom soose ak latir ndeysaan ak Njaay Tine am na ñuy sotti ci oto bi moytuñu moytuñu moytuñu combat Eumeu Sène am ampleur Tapha noonu mbokk capuchon ndeysaan la sol Tapha Tine capuchon la sol mi ngi mi ngi waxtaan ak gaayam yi dafa relax moom Tapha Tine Tapha man am na ku ma gis Ablaye Ndiaye a ngi noonu mbokk yi Mansour xoolal ma Ablaye Ndiaye Ablaye Ndiaye ah mais Ablaye ngi nii. waaw Ablaye ngi noonu. waaw nu demee noonu. waaye Ndiaye Tine ngi noonu borom kalaaf bi am nga combat yu rëy sax. ndeysaan mi ngi wax ak Tafa. mais Tafa mais Tafa tey Tafa tey dafa kaanaw ah. Tafa tey dafa kaanaw tey américain la. ndeysaan mi ngi noonu. ndeysaan mi ngi wax ak gars yi moom Tafa situation bi lañ ko wax nee nañ ko xàllal ma dëgër fit waaye Mansour nee na leen c'est bon na leen c'est moo woote Tafa ak may reetaan mu ngi may ree ñi ñooy samay sponsor guy gi 91 non mbëri sumay xarit lañ xam naa nar naa bari nag de sumay am jëkkër ndeysaan Tapha ngi waxtaan ak chauffeur am ndeysaan góoru góoru góoru si samay frère lañ ndeysaan mi ngi ndeysaan Tapha wàcc na Tapha wàcc alias biro noonu fii dafa xat xat xaara xaara fii daa xat na Tapha def naa Mansour Kaye fii bari sàcc sama sëba bi la jël Mansour Kaye na ndeysaan ndeysaan Siga Joon mer na mi ngi jooy oh ndeysaan Siga mi ngi jooy président ndeysaan mais lan nee na Tapha xajul fii dayoom xajul fii ndeysaan ñu gis ñoom ñëpp mais Fatma jàppale am mu jox fu mu defee a bon présam gën a rafet mais dafa xajul non lii rafetul ndax boo gisee Eumeu Sène xam nga ku xam Tafaatine open press am stade Iba Mar la ko doon defee mais stade Iba Mar léegi boo waxee lu jëm ci làmb rek boo ko waxee da lay gantal xam nga te ni nag mënoo lu dul déposé ñu ma ñaan ñu may la préfet bi moo yor dogal bi gàntal nanu ñu forcé moo waral lii lii point de presse rek lan waxante woon sànq bi ñu déggantee ma ne ko da ngay def woo journaliste yi ñëw nga def point de presse woo supporter mu jeex mais fooguma ne sax ay ndënd gi am na ci mën di am daal moom préfet moo nu te kenn mënul forcer yaa ñu ngi jégalu ñëpp nag bëggawuñu ko nii buñ sañoon stade Iba Mar lay amee ñëpp ñëw gis seen mbër bu dimanche ci kàddu yàlla ñu duma gan gi daan ko ñu dem ñibbi. ok bay Balla tey Tapha fu mu toll ci réew mi tey ñu gis ni tey ñu gis tey fii mu defee open press est que tey jaadu na un leader comme Tapha Tine. non du yoon c'est pas normal c'est que ñun bi ñuy ñëw sax ñun école euh, Elma El fee la ñu waxoon parce que fa ñu demoon. bi ñu bi ñu ñëwee bi ñu ñëwee Malick Sy à ma grande surprise à ma grande surprise ñu ne ñu ñu ne ñu léegi la playa la ma xam la playa ak ni mu ndaw ak Tapha Tine dayo bi mu am ak bu am bis bawal bawal ni ñu génne non Tafa moo la gënoon xam ni non fii xaju fi fii Ndiaye Tine rek xam sax xajul fii. amee ah, mais mais est-ce que Tafa Tine la mais encadrement bi tamit ci lañ bokk. ba staff bi parce que lii bis bu mag la du bis bu ndaw bis bu mag kenn du ko caaxaane même bu fekkente ni ah face à la presse nga bëgg a def da koy di xool fu fu baax foo xamante ni fu mag la foo xamante ni tey parce que fii presse bi rek bu fi duggee dafay fees xam nga ma la Tafa Tine du nit ku ndaw Tafa Tine boo jógee mbëru dëkk la boo jógee àdduna ñoo lay topp. bawol bawol yi rek xajuñu fii comprendre nga dooguma la ndax ñun li ñu war a def yëpp def nañu ko école médine bi la ñu defoon ba ñu bindal ñu këyit nañu def ci ngoon ay 4 heures ñu dem di installé suñu pujum biñ demee directeur stade bi nee nu mënatut a nekk ñu dem Iba Mar ñu ne préfet nee na stade bi pareegul mënatut a dem ñu ñëw école médine ba dem bay teg barrières yi ñu wëlbatiku waat ne nu foofu mënut a nekk Tapha Tine ñu la ay sénégalais la ay bawol bawoloon mais ci digg ndakaaru lañ dëkk am na ci yoo xamante ni autorités yi ñoo war a comprendre ba nu xamee ne ñoom duñu ko d'accord loolu lu waroon ne terrain bi mënuñu leen koo jox ñu teel a seeti fenn mais danoo bay ba nu installé sunu kii ñu bindal nu benn kayit ba nu installé li ñu war a installé ba pare ay 4 heures 5 heures ñu ne ñu mënatu la nekk fu nu dem ñu dàq ñu ñun ci Dakar la nekk tafaatin tay loolu mënul nekk. waaw mais loolu loolu loolu loolu moom franchement c'est pas normal ak Tapha Tine ak ki mu doon ci réew mi. mais est-ce que yéen nekkul ni dernier moment ngeen jug. non non non non. fi ngeen defee open presse aussi. parce que école bi fi mu nekk nii xam nga école bi dafa dafa ubbi. xale yi dañuy jàng te open presse 4 heures la 17 heures. kon ñu war ñoo bañ a jox kayit. ñu war ñoo bañ a jox kayit ñoom ñoo ñu bindal kayit jox ñu ko. dem ba ci digg directeur stade bi nee na préfet nee na xaw ma dana am ñuy manifester xaw ma lan tey tey gàntal affaire bi ñu ne ko du yàgg ñaan ko ñu mujj demati stade Iba Mar ñu ne stade bi pare ko ñoom ñoo ñu bindal kayit jox ñu ko tamponel ñu leen. maa ngi lay ziar sëñ maa ngi fay. Tapha Tine. waaw tey nan nga gisee tey point de presse am bi. waaw lii moom dèjà dama naan pour man euh, bu fekkente ne point de presse la woote yaa ngi dégg kon organisation bi moom dèjà jaarul yoon parce que lu tax mooy yaakaar naa ne Tapha Tine tey ci mbër yu mag yi nekk Sénégal la bokk loolu la yàlla dogal quoi parce que du lu mu fortaatu mais lu mu liggéey la quoi war a bëri ak Eumeu yaa ngi dégg événement bu toll nii événement bi mu jëm le 12 kon bu fekkente ne ñoom ci li ma dégg si ñoom gis nga dèjà gis nga. parce que lii daa mënta ne. non lii maanaam daa mënta nekk quoi dafa am loo xam ne maanaam ma lu mënta ne kenn du ko isee. waaw li ma la léegi rek li ma la wax léegi si nekk rek yaakaar naa lii ñoom waroon nañ cee teel a jóg parce que fii point de presse xaju fi quoi. Tapha Tine mënta def fi point de presse ay internet di fi tëgg ay supporters am ne fi loolu c'est impossible presse bi déjà macha allah takku nañu yaa ngi dégg waaw. waaw mais bien sûr non presse bi moom boo bëggee dégg-dégg maanaam du neex a wax man ci laa bokk mbay sa wu tànk mais ñun tam war nañ xoolaat suñu bopp xool suñu taxawaay parce que nit gis nga nit bul nangu ñu lay xeeb wala ñu lay yab am na li nga xam ne nii maanaam ñun ñoo ko war a moytu. fi mu nag mbir mi kenn xàmmeetul lu weex la wala lu ñuul la jaxasoo bi daa bari lu neex waay def te koo waxal boo jéemee critique Fatma ci sax Fatma mën naa am nu mu ko gisee. est-ce que ngi dégg te fekk na yow la ngay wax njëriñu Fatma lay doon kon actuellement li ma gis Fatma mooy ñun ñoo war a xool suñu bopp déjà parce que olof ne na mbay sawewu tànk nit ki balaa balaa ngay wax ne nit ki defaral sa toogaay bi yow xoolal ndax sa toogaay jekk na wala déet quoi. du am lu mu wàññi. non mais bien sûr parce que boo xoolee lamb dimanche passé Ligue Nicolas xoolal ñaata kenn mënu fa dugg presque ña fa dugg bariwul bul ay partenaire parce que tamit lii nii tamit du neex ci amateur bi dagg billet di seetaan du neex ci mbër mi ñëw bëgg a tuus parce que yooyu yëpp nañ ko sóor ak promoteur bi. voilà léegi saafara bi. waaw saafara bi mooy ñu xool suñu bopp ku nekk li la war nga def ko est-ce que yaa ngi dégg ku ci ne moytu di dugg fu nga xam ne woowu la fa. yaa ngi dégg luñ la boolewul bu ci jéem bokk. àddina jeexul te du benn bés loo gis bés la après day passé lii ne lii ne dèjà jeex na mbër mi ñibbi na dimanche dañuy bëre mu jeex voilà. nañu ne euh, professeur yi dañuy nuy xam nga après ci la am signal bu jóge ca kaw ñu wone ne maanaam affaire bi mënatu da amee fii ñun nag pour ñu bëggoon a sowe bés bi ñun dañoo calculer woon ne nu ñëw fii Tapha rek ak ay quelques gars ñëw fi def benn déclaration rek nit ñi dem. mais nag comme loolu mënula la am nag wax dëgg yàlla bi ñu dikkee fiit ku ne xool na ni mu demee parce que nit ñi mënuñu leen a organiser bari na nu bari goo xamante ne nii xaw naa doy waar mais lépp dañu leen di comprendre parce que xer la rek aussi suñuy mbokk la nu suñuy doomu ndey la nu ñoo andi tafaatin fii mu ag te danoo xer ci tafaatin dem na ba affaire bi mënul am dañuy xam ne noonu la ko yàlla dogale rek ñu ñaan comme ni ñu mobiliser woo tey bu suuru làmb jaa rek ñu mobiliser woo ni jàppale seen mber muy communes yi bokk ci Bawol yëpp muy région Diourbel département Bambey arrondissement Lambaye commune trois Réfane commune Réfane commune Ndondol commune Ngogom Polek commune Lambaye commune Touba Toul commune Ndiayane Sirax commune Ngoundiane commune Ngoy Aline Sila yooyu yëpp xombol waaw ñoom ñëpp ñu ngi leen di ñaan ñu jàppale seen doom ñu jàpp waa ji daan ko dem suñu yoon. Tapha Tine ak champion bi mu doon Tapha Tine ak ndaanaan bi mu doon ak réew mi ni mu ko xamee est-ce que Tapha Tine war na am problème mu fu mu defee. non non non yow euh, mbay guy gi sax am na fu mu defee open press c'est que nag loo xamante nii ci problème mu état la Tapha Tine mënu ci dara loo xam ne cinq heures cinq heures la la te boo ko doon wutaat da ngay wut autorisation wut lépp. vraiment nii la mën a demee yéene rek la ñu amoon waaye daanaka affaire bi day nu ko waroon a ram waaye mais nag boo diggaaleeg sa moroomi góor mu nekk promoteur def li mu war a def lépp ci làmb ji il faut it yow nga def tous les moyens ba mu xam ne yow au mois def nga effort pour que lamb ji pour que lépp jaar yoon promotion lamb ji jaar yoon te daanaka lii rek doy na parce que man vraiment man sama appel bawol bawol yi dañu koy déglu te bu soobee yàlla Baye Ndiaye li mu bëgg dina ko am làmb ja dina fees del d' accord Badal ñu ba dugg ci combat bi ñu gis Eumeu Sène menace yi mu def ne moo dàq bëri moo gën a gaaw moo fi baissé moo gën a mbappat waaw parce que comme moom wax la am am na cinquante ans moo ñun ñii ñoo maase bu ko neexee mën naa wax ngir la ba xel yi ngir jéem a jaxase dalal xelu supporter am ak jéem a tax waa ji may ko importance pour mu jéem a pour mu jéem a xalaat waa ji mën naa def erreur ci loolu mais combat bii ci yoon la nu koy teg nu nu amee victoire baax na door mu daanu baax na puus mu gën baax na yéenu door ci suuf baax na ñun doonuñu ku ñuy saax-saaxee suñu combat dañu koy teg ci yoon parce que combat yi nga xam ne yaa mën mbër mi yooyu moo jar a gën a sax parce que yooyu cat da cee gaaw a dugg. da ngaa jàpp ne fii Tapha Tine moo mën amat seen. ku mujj dabe boo jiitoo raw yow itam moom Mbaye Diouf ak Saloyne la doon bëreet. bu demee ba Tafa tax doon euh, toog buntu kër Mbaye Diouf bi muy bëreeg Mbaye Diouf doon xale bu ndaw Tafa dem ba ak fi mu ak sut ko loo ko lars ko ëpp ko doole lan lay calculer ci moom daan yàllaa ko yor. neew ma leen dañuy daan parce que. Oh, ña nga jëm arène nationale dimanche 12 novembre Eumeu Sène Tapha Tine lamb sajetina laay lay la laa ku ne Albourakh Events moo leen le choc extraordinaire le choc des titans le choc des champions le rendez-vous de classe mondiale kokan la ñu ne le grand champion Tapha Tine borom jirib ah mbokk yi ku moom drapeau Albourakh Events ne monsieur Lat ministre des sports sport la ñu tuddee lamb ji la première grande sortie du ministre des sports ma nga jëm arène nationale ñëw seetaan si Tapha Tine ak Eumeu Sène l'homme de Guédiawaye l'homme de Guédiawaye la job